ma ne sànq dama wax ni maire bu baax la daf fi mu woo ñu dimanche nañu egsi dimanche ñu tase secrétaire général ànd ak directeur yi ñu ñëw accueillir ko mu dugg ci jardin man maa ngi woon borom di politique mu woo ma ma ñëw vingt une heure vingt une heure ñu ne kon nañ def inauguration ma ne baax na wàññiwul ndax xam naa ne xam naa seen pas xam naa seen engagement loolu lañ def lii nag administration ville bi ak les villes les adjoints maires ñoom ñoo ko def tey jii les adjoints qui sont là de la ville ñoom administration bi à l'autorité le secrétaire c'est eux qui ont organisé les événements man dama ñëw rek ñu ne ma waxal comme d'habitude dañuy defar ba mu baax ñu ne ma waxal loolu moom ay naaj loolu dafay mel buñ ma waxee rek rek ma xaaral ma ma wax moo tax ma ni.

waaw jardin la naam jardin la di gën a xam jardin la ñu dem ba garab yi jóg wante nag bu dee soo jardin bi terre dem leen ci terrain as basket ak terrain àndal mais yokk nañ ci dara rek espace culturel gis ngeen sanc ni acteur culturel yi liggéey fii kon espace culturel kon loolu lañ ñu permettre ñu réaliser loolu nag dafa nar a fekk ëllëg ñun ñu ne ndax hôtel ñi ngi ak Maroc ci maison des arts ñett yooyu di bu am solo waaye bu fekkee see nag léegi ñu defaraat boulevard yi ba mu yàgg teg ñaari canal yi waaye xar te soppeeku loolu la de ñu bëgg ko ñu bañ képp moo dara am yàlla ko lu si kon yéen ñi teewi bi ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkeel di leen ñaan ñaanal yàlla yàlla yàlla ñu may yàlla na yàlla def bu benn jour nit ñi ay nit di jógee yeneen dëkk ñu ne fu leen ñu ne nous allons foofu dafa am lu fa xew lu fa déy dëkk boobu dafa nekk dafa dëkk boo xam dafa taaru nit ñi dañu am koom dañu juboo dëkk bi dafa leer dëkk bi dafa am garab dëkk bi dafa set dëkk bi dafa organisé incha dina am yàlla na ko yàlla def jërëjëf